man maa ngi jooy ndax ñàkk yaay man maa ngi jooy bi ma juddu kii mooy soxna Astou Mbaye mooy jiite daara ji ñuy tuddee Mafatihul Bichri nekk fii ci Ndar ci gox bi di Ngaleel xale yi fi nekk toll nañ ci juróom ñaar fukk daara ji nag wuute na ak yeneen daara yi fii xale bu nekk ak ni mu fi ñëwee xale bu nekk ak histoire naa ni de ñii ñëpp man maay seen yaay am na xam ne seen papa dafa gaañu ñii seen yaay yi gaañu seen papa yi mënu leen téye ñii seen yaay yi ñuy ñu nàmpal leen ci ci ci ci ci meen bi ñuy lekk ci ay mbalit di wër di fortaatu ndax àdduna bi bu sa waajur dofee rek yow dof lan lay jàppee lan lay bàyyi ngay taxawaalu ndax sa waajur wérul ka am na ñi nga xam ne nag xaw ma sax ñen ñooy seen ay waajur ndax ndar fii daan nañu dégg ñoo ngi rey ndongo yi ñoo ngi jël sa doom am ko si lu neexul yàlla nga gas suwul wala nga jël dugal ci foos waaye yàlla mi nga xam ne dara tawul sama daara ji ba mu taxawee ba léegi ndar loolu amatu fi ndax ku jël sa doom bëgg ka rey wala dara sax daa ñëw ba sama buntu daara tëralal ma ko daw dem sa yoon ma yor leen nag macha allahu rabbi maay sang maay fóot maay ma ma man dongo maa nekk si daara ji

ma nettali ci karamu xale yi mhm. waaw mhm. ndax am na yi nga xam ne tamit ay xale la nu xamuñu mhm. te dafa nekk euh, li nga xam ne day nekk secret yi nga xam ne doo bëgg ñuy toog ñoom di ko wax ndax xale du lépp la war xam du lépp lépp nit dina fi indi doomam parfois dama leen naan kii yaayam dafa tukki mais du ma leen bëgg wax lii ak lii ak lii la ndax après c'est une histoire bi nga xam ne ay problème famille lay nekk xam nga ku am sa borom kër jur doom ci kaw sa borom kër loolu problème yi li nga xam ne la boo sàddiwul sa doom daa ko rey ndax doo bëgg sa jëkkër nekk fi mu ngi à l'extérieur mhm. nga am doom ci gannaaw gannaawam boo ko naree sànni nag mhm. maa ngi la ñaan bi sabililaa buy rey xale bi mhm. ndax lu nu man lu nu gën a yokk te nekk ay jullit jàng alxuraan moo ma gën a démb dafa am ku ma woor téléphone ni ma soxna si da sonn ma ne ko sonn ma bu ma feebaroon ba di raam du ma sonn mm-hmm. kañ laay dem ba xam ne kii bis bu ma xam ne sama borom jël na ma mm-hmm. mënatuma dara mm-hmm. waaye bu ma feebaroon ba di raam laaj la ñoo ngi nii damay togg daw tëdd ñëwaat togg daw tëdd lépp rek ñu doon ay diine ak xale yu ni jàpp di rey di violer am naa fi xale yi nga xam ne ñu indil ma leen ay ponk lu ma magu jëm ñoo leen daan utiliser si mbedd yi di len jël di ñu nek ay di taxawalu ci mbedd ni di taxawalu bu guddee ñu jël leen yóbbu leen fanaanoog ñoom jëriñoo loon comme comme comme soxna ak yi bu ñu paré sanni xalé yi est ce que lolu rafet na ci réew mi lolu baxul fajar lañu yew 4 mateng di matin sang ñu ci tour ndox ma bàcc yére yi bu ñu paré sang len ñu tok jang alcorane ba fajar bu ñu jangé alcorane ba fajar suñu waré jàngi école ndox dama len inscrire ñi dem jangi ndox ñu mënal seen bop dara ëlëk noonu laa nekkee ñoom man maa ngi jooy kii moom Mouhamed deux lan lan koy wax Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam lan ko tudde mu ci liir bi lan ma ko joxe man maka nampal ba feral ko man mi man maka nampal il pense que je suis sa propre baba soxna su mo borom kërëm dañu jaayante ngir yar xalé yi toppatoo len comme seni dom motax sa su ñi ngi len di xol kër gi yépp dañu ko def ay caméra de surveillance kër gi yépp dañ ko mettre ay caméra cachée ngir surveiller xalé yi ngir xol ñom seen nekk na la nekké ndax dañuy indi ay xale yoo xamante ni ay type la enfant bu nekk di nga ko am ndax xale yi bokkuñu jukko ndax bokkuñu waajur type bu enfant bu nekk di ko am di nga gis xale boo xamante ni dafa nekk xale yor jukko xale mais di nga gis xale boo xamante ni dafa nekk xale ba pare yor jukko mag te loolu yëpp dañ ko fiy indi pour xale bi pour nga changer comportement am jëfin ak doxalinam kon xale bi tamit dafa laaj veiller bu baax ak surveillance te nit ki mënoo minute bu nekk nga nekk seen néeg minute bu nekk nga nekk seen

ndax mënul toog ci dortoir bu nekk di xool xale yi na fay nelaw mais boo dee da nga nekk ci télé bi nga xaj ko en 4 pattes 5 pattes yaa ngi jàkkaarloo dortoir bu nekk bu nu fajar jotee 4 heures du matin dafa am micro nu wax nu yee xale yi xale yi bu nu jógee nu jàpp ñi nga xamante ne dañu tuur ndox nu yóbbu leen ci douche bi këpp leen ndox solal leen. soxna su mooy yaayu xale yi am na pas-pas bi fonk na liggéey bi wante yor juróom ñaar fukki xale ay góor ak jigéen du yomb. bëri na lool ay jafe-jafe surtout ci wàllu dund bi. ndeysaan loolu nag ndeysaan metti na loolu sax. Mm-hmm. metti na loolu ndax foofu boo fa laalee rek mm-hmm. sama xol day tooy loolu. Mm-hmm. man maa ngi jooy ndax ñàkk yaa ndax ndeysaan doon nekk ay xale te man bugguma ñu xiif bugguma ñu mar bugguma timit ñu rafle sama kéemtalaay kàttan laa si def bu ñu toogee nii ba lek lekk ba ma gis suuruñu bis boobu du dekk du dekk timit ndax daf may betti bis bu ne maa war foo suur pour ñoom ji suur fukki kilo ak benn laa war suur pour ñoom ji suur këll saako ceeb bi kon ñaata lay war a dem saako ceeb bi du sax mot une semaine saako ceeb bi jeex waaye yàlla seetaanu ma lu tax ma jooy dama xam ne sunu borom seetaanu ma ndax nit a teg alal bu bari pour corrompre ma ndax tey bu ma toogee ñu xiif ma gis alalu seytaane te alalu seytaane boobu mënoon na leen suurloo fii rek ci àdduna ma jaayante ko ma ak sama borom kër bàyyi ko kon bu ñu xiifee sax loolu dina nekk bunóor si man waaye te nga xam ne sant yàlla xiifuñu saabu bu ma amul damay bind ku ma mën jàppale saaku ndax àdduna bi ñëpp ñu may dégg yenn saa am ñu ma orange mu ne ay 2000 3000 5000 mille cinq mille ma jënd sabu am na ki nga xamne timit euh moom timi bëggul ma tuddu turam mhm. dina ma may kotol mhm. paquetu kotol bi mhm. di mom lay def foot ci yére yi set pecc suma amul ciep ba ciep jeex ba ma jaaxle ba jaxlé am na ki nga xamne daf ma ni soxna as bëgg ma nga tudd sama tour ndax yalla mo tax bay def sama doole bëriwul way dina ma may saaku ciep wala jaari saaku ciep ñoo ngi nii bu du xëyee suba bu doon sombi sax naa leen ko togg ñu lekk ba suur këll su ma amul soow def si sama suukar ñu lekk ba suur heure naa leen toggal ceeb ñu lekk ba suur bu guddee su ma amee sama mbaxal toggal leen su ma amee sama gosi toggal leen bu ma amee sama ruy toggal leen lu ma am naa leen toggal waaye lu lew laa leen di toggal lu lew te dama leen naan ñoo ngi ma dund ak ma dee xamu leen sama dund ak yéen fu mu yem waaye gis ngeen man ak yéen amuñu benn nëbbu àdduna tërëm su ma ko joxoon ci daara ji ni ma dama barkeeloo lii ci daara ji mhm. damay ñëw bi si ñoom ñi leen toog leen ñu julli ba pare man leen diw yónnee na fi tërëm bii mhm. dama bëgg ngeen ñaanal ko mhm. ndax ñu alxuraan rek la ñu am amuñu dara ñu ñaanal ko si alxuraan ma envoyé ko vidéo yi suñu yaay daal sonn na trop sonn na trop chaque dimanche chaque lundi ajuma mu takk ndigam dem sa marché bi di maajal ngir ñun ñu dund nekk si à l'aise leen di tàllalaal loxo bu baax pour ngeen jàppale ñu si wàllu lekk bi ak suñu wàllu daara ji ak si yére yi pour ngeen jàppale bu baax xale yi mën nekk ci à l'aise koromp boobu nag soxna Astou di junj benn tubaab moo leen ko bëggoon def moo ñëw jëndal leen kër ci ay millions yu bari wante ndeke ci ginnaaw gi dafa am lu mu soxla woon ci xale yi loolu nag ba mu antuwul seen diggante yàqu. ñoo ngi woon ci gannaaw région médicale ba. bi fa nekkee man ak sama borom kër. ñu nekk fa moom mu nekkoon enseignant di jàngale. moom as tuuti li mu daan am moom la ma daan jox ma ciy fay daara ji. léegi ñu dem dem dem dem dem ba benn moment ñu am fa ay arrière. huit mois neuf mois. si la borom kër gi nag ni mënatul muñal day jaay kër gi bi mu waxee loolu nag ni da koy jaay si la am benn tubaab bu ñëw gis ndongo yi fa nekk mu expliqué ma léegi bi mu nee dafay jaay kër gi tubaab bi gis leen ñëw ni ma est-ce que bu leen génnee am nga fu ngeen nekk ak xale yi ma ni ko déedéet aw ma fu ma nekk ak xale yi de mi ni ma amoo fenn foo di ma xale yow ku lay jàppale état da lay jàppale ma ni ko état jàppalew ma gouvernement jàppalew ma yàlla rek moo may jàppale ma ni ko ak lan yenn saay ma gis ay bonne volonté yu ñëw may ma saaku ceeb yi ñaari saaku yenn saa yi du leen sax gis ma kon je vais acheter la maison pour le bonheur des enfants ndax duma ma ñuy jël xale yi di leen sànni ci mbedd meeg yooyu te kooku ab tubaab la ab tubaab la nakati du jullit du jullit gëmul dara gëmul dara mm-hmm. nakati am na leneen lu mu lal si suuf mm-hmm. mu demee ba waxaale kër ga ba jënd ko 22 millions jëndaat ci kanamu kër gi 3 mètres muy 3 3 millions lépp muy cinq million mu dem France ba dellu si ni mu dellu see mu ñëw woo ma woo sama borom kër am ñu mu àndal mu ne ñuy toog di waxtaan di waxtaan ba dugg ci affaire religion mu ne mu ne mu ne à partir d'aujourd'hui on va dire la vérité ndax la vérité est véridique ñu koy déglu mu ne à partir d'aujourd'hui kër gi man maa ko jënd vingt deux millions léegi nag da ngeen di nangu ak man sigganteeg man benn contrat mhm. bu ngeen nangoo sigganteeg man benn contrat xale yi maa yor seen lekk maa yor seen naan yow soxna Astu naa la jox oto naa la jox uh, fenn mois bu ne juróom fukki junne noonee laa koy defal sa borom kër xale yi dootuñu amati benn benn problème kër gi si kaw dama leen koy tabaxal orneel leen ko defal leen lépp mais benn condition dama bëgg rek ngeen bàyyi lépp lu jëm si seen wàllu diine waaw man daal loolu laa bëggoon ngeen def ko fi man ne que nag fii ñun amuñu benn parporloo ay diine kii lii kii lii ñun alxuraan bi ñun ñëpp koy jàng mm-hmm. alxuraan bi ñun moonu saxal mi mm-hmm. ne alxuraan boobu nag ngeen wax man moo ma gën a metti mm-hmm. ndax dama bëgg fi lekk cent ma éliminer alxuraan ci këru àdduna éliminer lépp li nga xam ne alxuraan la rek ak lu jëm si wàllu diine mag ñu njëkk ñu seen jàngale ñëpp ma éliminer ko si àdduna ngeen jox ma xale yi ma développé seen benn neex nee na alxuraan bi ñuy jàng naan bismillahi rahmaani rahim neen day fay seen côté bi nee na comme côté bi da koy fay nee na moom bu leen jëlee am na lu mu leen di jàngal xale yi léegi bu nu demee ba ba ba bàyyi lépp lu jëm ci wàllu diine lépp lépp day développé seen cerveau bi ñu koy jël ay paris sportifs ay ay bourses financières hmm. bi dama nag vous serez riche de l' argent de l'or naa leen sax jox passeport diplomatique fu ngeen bëgg dem ci këru àdduna bi ñu ne ko ñun dajoo ñun ay jullit la lu nu sunu boroom def ba nu toll fii ci àdduna bu nu yokkul suñu pas-pas duñ ko wàññi sa alal bii ngay gis ñun tiitalunu bis boobu nag tàngoon na loolu tàngoon na loolu suñu diggante ak moom mi ni kon tant pour vous maa ngi tuub si wax bi bis na ko tey sama kër laa bëgg a génn génn ko ñu di ko dañuy may ab diir ñu wut fu dem ak xale yi sëñ bi amul ñaari wër bu toj kër gi amul nakaral bu mu nakaral xalé yëpp di fekke nan ko di du nakaral toj kër gi def lu ko neex légui nak ñun bi du mënu supporter loolu metti na néegu xalé yi fess del nak doj si la ñu génn ak xalé yi tànt si buntu kër gi ci la nu nak vidéo bi ñuy xuloo moom xaw naa xeex ak moom xalé yi gën mag vidéo ko ma jël vidéo yi lancé ko si facebook bi ndax fekk na bobu jaxlé naa amatu bu fuma jëm ak ci groupe bi ci lan ko jël nak après am ko ma woo téléphone di ma soxna si bi ni ma yéen loo leen di def nii si mbedd mi ma expliqué ko yëpp si la ñu wutal fii fay ka macha allah maa ngi koy ñaanal yàlla ko sunu borom yokk ci barke alxuraan si la ñu nag wutal fii nii nii fin janvier bi na sunu des contrat war a jeex moom li ma ne kuy nekkal nekkalal alxuraan kuy jàpp jàppal alxuraan moom fi mu taqal juste nu jox ñu fa pàkk def ko addiya alxuraan mbokk julli di timit ban ko déggee ñi di indi seen saaku ciment ñi di indi seen fer ba moment bi tabax nañu ba ñoo ngi yam ci collage lu metti moy suñu génnee fi xamatoon fu ñu dem ta suñu génnee fi ñu xam fu dem suñu daajee kese nga am na né ñaan yalla bu paré ci jamm salam rek ñu ñibbi Demandez du tout. man maa ngi juddu mu dem maa ngi ju chantier bi mi ngi nii ki ñu fekk mooy borom këru soxna astu ñoom ñaar ñoo bokk pas-pas ci xale yi nit moom parfois da ngay toog ci sa àdduna ngay xalaat bi ma yàggee mébét lii dafa yàgg yàlla dogal ginnaaw suñu ay études universitaire ñu nekk Dakar jógee Dakar étude universitaire bi itam ñu génn fa comme diplômé en réseau informatique de gestion waaye ñu gis ñaare xëy na loolu itam am na ay mbir yu si nekk ndax yaa nga war a liggéey ci banque ñuy daw saa su nekk ngir xool liggéey bi na mu gën selle ñu xalaat ñu dara gënta am solo lu dul yar ay xale ñu tàbbi si enseignement bi par voie normale concours bi ñu defee concours ñu waroon xaar sax quatre ans pour def CAP écrit ñu anticiper ko def ko deux ans ndax boobu am na lu ñu motiver ñu war ko ñu war si jublu bi ñu koy yàlla defee sutura itam ñu toog fa toog fa ngir bañ génn génn goo xamante ne xëy na danañ ñu si jam ñu demee ba amatuñ lu ñuy prouver si enseignement maanaam bi ñuy seetsee ñu am suñu diplôme CAP mu ni kon mat na sëkk mu lii la Seydina Omar radiyallahu taala anhu jaayante woon l'islam ci jaaseem ji Khalid ibn Walid jaayante ko l'islam ci expérience de guerre am ñun ñu dañu jël suñu compétence bi jaayante ko l'islam loolu mooy lan ñëpp xam nañ ni koor bi ñu nekkoon ku jot sa CAP yaa ngi xaar ay rappel man nag jotuma ko fa xaar te itam dëkk yu ma jaar yu nekk mën na lañ jox turi dëkk yi bu ne seen sogu do duma génn ci dëkk boobu waaye ma xam ne am na lu ma yëkkati woon te mot na moom mooy CAP bi ñu ñëw reconvertir ko indi ko ngir fas yéene ko taxawoo tuuti tànk yi expérience biñ ci am mooy yarug dina gi diitu ñu si ñun ndax fii ndar maa la koy wax léegi boo juddoo ba am tàmbali jàng sax daan laata sept ans sax dana yóbbu daara boo wàccee alxuraan su ko defee itam da ngay continuer noonu sa jàng sa jàngul français mu xam ni ñoom am nañu capacité boo xamante ne xale bi dana mën a teel a distinguer distinguer A B mën lire à bas âge compétence boobu boo ko jëlee boole koog li nga xamante ne moom la xale bi di am ci xam-xamu alxuraan soo ko boolee xale bi dana mokkal mokkal gu gaaw waaye dana yaru itam chance boobu lay am loolu moo waral ñu bàyyi fa rappel ñu bàyyi fa mboolem avantage boo xamante ne am nañ ko ngir fas yéene liggéeyal lislaam ci internat bi ñu ubbi laa ilaha huwa yuhyi wa yumiit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin benn couple la boo xamante ni dañu bay seen en fait seen njàng waaye dañu jël seen njàng delloo ko askan wi waaye delloo ko diine l'islam mi nga xamante ni ku si forger sa doom ëllëg si biir da nga am li ngi wax nouveau type sénégalais yaakaar naa loolu mooy véritable idée idéalu nouveau type d'un sénégalais xale bu ñu yar ci diine waaye xamal ko àdduna ci kaw laluk diine seen chantier bi nag mi ngi dem ndànk-ndànk seen yéene mooy yeggali ko ak nu mu gën a gaawee ngir ñu gën a mën a taxaw xale yi ndax sama tabax bi bu paree ñoom ñi ma nekk ak ñoom naa autonome naa autonome bu baax ke dootu ju génne kenn dootu ñëw dinu chantage ngir alal sëñ bi aw ma chantage bu ma fi amul ci këru àdduna waaye ma ànd ak sama ngëm-ngëm rek ànd ak sama diina ta xam ni alal poyetu adduna dong la day jeex nga dee mu des yow suñu borom te kenn xamul sa sa sa diggante ak sa borom fu mu toll xale yii nag yow ma gënal sama bakkan bii wax dëgg yàlla ñoo ngi lancé appel daal ñu ngi jégalu ci lii sax ci bu baax waaye daal ñoo ngi lancé appel ci képp koo xamante ni am nga sa wërsëg bëgg ko baaxee l'islam wala bëgg ko baaxee lu baax ñun on a on en a besoin soxla nañ ko dëgg yàlla ndax daara ji ñi nga xamante moom lañ ko taxawale dañuy yittiwoo ku ñu fi jàppale ba ñu mën a yor xale yi yarin bi nga xamante ni suñu génnee danañu naw tout tànk yii nga surtout tout tànk yii ñu yor nga xam ni am na si yoo xamante ni doo ko sax mën wax si caméra waaye am nañ ci ñoom ñeewant am ci ñoom yërmande goo xam ni bu doon suñu sogo ñoom bu ñu génnee mel na yeneen xale yi tekki waaye nekk itam fii ci si si orphelinat bi dans les conditions meilleures meilleures laa wax ndax l'islam yooyu na lu ko ëpp loolu daal mooy lancé bi ku si def na nga xam ne ci lislaam nga def yal na leen yàlla defal suture itam yokk zahiran wa batinan ba li ngeen am yéene def ko yàlla mo ko ci jàmm bëgg naa tamit ñu jàppale sama yaay ji nga xam ne mooy soxna parce que sonn na si ñun lool ñun daara ji ñun ñeewuñu kenn ndax fii dañ ko jàppee comme suñu kër lépp loo xam ne am na am yaay am baay di ko def si mbedd bi wala seen kër ñun fii ñun ko fii daj tiituñu jooyuñu defuñu dara ndax suñu yaay ji man maa ngi jooy ndax ñàkk yaa